saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat Modou Lo ak ba journal ba xam ne dañ koo hypothéqué combat royal ba waroon a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé dañ koo tayle Luc Nicolaï ma waroon a taxawal bile combat ba léegi mu ngi ci loxoy yoon taxawal ga ñu taxawal combat ba jàpp dat joxe avance taxul mbër seeni xel dal li leen jaaxal yéem seeni entourage mooy est danañ bëri ren Modou Lo ak ndax danañ sëgg ren foofee la laaj ne diggante Modou Ama Baldé bi képp a leen tere nelaw waa jege ñaale Ama Baldé ci journal bi la ñu xam am na yeneen promoteur yu bëggoon seen diggante ak Modou promoteur yooyee waxuñu seeni tur waaye combat bi moo leen di tere nelaw ndax dañoo jàpp ne diggante Modou Lo ak bokk na ci combat yi nga xam ne mën naa dundalaat làmb diggante Modou Lo ak Ama la boo xam ne faaw mu leer loolee moo waral amateur di sàkk lu leer ci bile combat balaa saison xamle mooy buñ ma fayee lu ko jar ma bëreeg Boy Niang loolee mu laaj ci digganteem ak Boy Niang 2 gisaguñu promoteur bu ko ko mën a ba ñu làmbaatee diggante Boy Niang ak Gris Bordeaux dafa ak Balla Gaye 2 seen combat ak Boy bu taxawul ci ñoom la loolee moo waral journal ba ne Boy Niang 2 est-ce que du gaay dañ ko ragal est gaay amuñu lu ñuy sóoraale ci moom moo tax bëggu jël Boy Niang bu ñu jàllee ca prince dañ koy fekk mu taxawal jàppale 13 avril diggante caat booy bambara ak Modja bile combat moom prince da ko bëgg def événement bu rëy moo waral ñaari mbëri mu dig leen 4-4 muy Modja di caat booy bambara ku ci nekk jàppal ne prince yoreel na lab 4-4 waaye 4-4 yooyu dafa am condition yoo xam ne moom la ca lal ya mooy bu ñu jaayee 20 ñoo moom oto ya beneen duel ba prince taxawal mooy diggante hôtel Dior ak Obbali ñaari mbëri simple yooyu di yi d'accord léegi ma taxawal bi combat combat ba war a am le avril bi ñu dëgmal diggante Siteu ak Papa tey lañ ko fas yéene régulariser ca CNG le choc de l'indépendance régularisé ce jeudi diggante Papa bu jàmbaar Wrestling ak Siteu bu Lansar tey lañ ko fas yéene régulariser tey ca CNG la ñuy régulariser bi le combat ñu amal face à ba bu ñu jàllee ci commune bu Fimela nekkee ci département bu Fatick ñoom ñoo fas février foofee ca arène Ngor Ndour waa comité de gestion bu arène Biram Tening Njaay ñoo fas yéene organiser foofee teg fa 2 millions 800 mille francs gannaaw ba mu daanee bébé julde moom jaatu yof keroog ca arène nationale ñëw na ba lim ay adversaire am la mu xamle mooy Modou Anta Double Moteur Diène Kaïré lees de nañu ñëw ñu bëre ñii ñooy samay naataangoo ci làmb ku ci ñeme na ñëw ñaar ña ñemante mooy Ousmane Gandigal ak ak serpent la nga fas yéene defanteeg sa morom ëllëg incha allah